docteur Famara Sané maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay nuyu alhamdulilah. Ah, maa ngi nuyu waa bépp euh, auditeur mi FM. Mhm. yow docteur nga ci wàllub science politique ngay kon euh, jàngale ci wàllub euh, kon relation internationale ci université bu Ndakaaru ñu wax ak yow wàllu politique ñeel d'abord fi nga bokk muy parti démocratique sénégalais temps yi dafa mel ni da ngeen yeewu. ngeen euh, woote déjà ab euh, manifestation pour opposition bi yëpp manifestation nationale lu waral loolu. oui mais je pense que euh, yow moom loolu dafa diis trop parce que partie bi mu ngi def liggéeyam te ñun ñëpp xam nañu PDS bu dara amee loo xam ne war nañu ko revendiquer dañ koy revendiquer donc c'est pas parce que ñu ngi nelaw nañu ou bien def ñu dara ou bien amuñu lu ñuy def mais c'est parce que euh, ñun lépp lu ñuy gis loo xam ne euh, àndawul àndul ak ak démocratie dañ koy dañ koy dañ koy contester et contestation boo xam ne constitution moo ko reconnaître mooy nañu da ngay manifester nga def marche ou bien nga organiser meeting nga exprimer sa idée hmm. ci loolu la ñu nekk léegi li waral ngeen taamu waxtu wi parce que bu yàggul dara ñu ngi doon laam-laamee retrouvailles famille libérale euh, tey jii ngeen jékki-jékki wane beneen xar kanam lan moo ko waral. non parce que gis nañu période bi euh, euh, moment boo xam ne waruñu waruñu laal leneen surtout lu jëm dem ci ci constitution. Hmm. te gis nañu parti au Euh, Macky Sall ak mbokkam yi ñu commencé nañu di laal loo xam ne dafa dañuy def lépp pour mu ah loo xam ne daf leen arrangé pour que suba ñu mun a gagné élection yi loolu moo tax ñun tam ñu jóg pour wax communauté yi société civile yi ñëpp tous les acteurs population yi nañu nañu nañu jóg euh, wax Macky Sall na arrêté euh, lu mu nekk di def nii parce que lii ku nekk da nga war exprimer sa idée nga mënee sa campagne ku la gëm mu mu jox la kartam mais bul jaar ci loi yi bul jaar ci texte yi euh, pour que yow nga mën a am majorité mu mel ni tamit PDS euh, soobu ngeen ci élection législative yi ndax ñu ngi dégg ngeen tabb ki nga xamante ne moo war a doxal seen campagne muy directeur de campagne bi di Mamadou Lamine Thiam euh, ban taxawaay ngeen war a am kon ci législative yi non ñun suñu taxawaay toujours euh, day euh, taxawaay Abdoulaye Wade depuis tout temps bu muy créé parti mu taxawaay mooy mu taxawaay boo xam ne euh, day ay mbooloo taxawaay mbooloo la donc day woote parti yëpp ñoo xam ne ñoom ñoo partagé idée yoo xam ne moom tam am na ko donc. ñoom ñooy bokk euh, benn parti depuis Fall dem CAP 21 ainsi de suite léegi ñu ngi ci coalition euh, jaar nañu ci coalition Sopi maintenant ñu ngi ci wàllu peut-être beneen coalition mun na ne mun na am quoi donc moo loolu mooy suñu taxaw maintenant au cas où euh, gis nañu ne Euh, amul parti boo xam ne euh, d'accord naa pour ànd ak ñun ñun dañ le parti démocratique am na doole. Hmm. na doole parce que mën nañu nekk c'est véritablement mooy tey parti boo xam ne dafa organiser dafa am maanaam dafa am dafa structuré te mën nañu dem ñun euh, parti démocratique kese mun na dem élection. Mm. Euh, xam nañ ni xëy na dogal bi euh, njiit li di maître Abdoulaye Wade moo ko jël mais Mamadou Lamine Thiam euh, pour yow lan moo waral tànneef bi ci moom. waaw parce que boo xoolee parce que par rapport classe politique. Euh, le personnel politique bu nekk parti démocratique sénégalais moom bokk na ñoo xam ne ñu gën a aaye ñu gën a yàgg ñu gën a am expérience ci politique parce que nekk na député depuis alternance ba léegi moom ngi député yàgg na nekk député xam na euh, député euh, activité politique ni ñu ko mënee nekk na membre du bureau de l'assemblée plusieurs fois ay at at nekk na même nekkoon na questeur de l'assemblée nationale donc dafa am expérience avérée donc euh, moom ak ñeneen ak ñeneen mun nañu nekk directeur de campagne mais le choix s'est porté sur lui donc loolu moo tax. Mhm. mu nekk kon euh, li nga xamante ne moom la ñuy xaar euh, ci PDS ndaxam daañu demal seen bopp ci élection yi am déet mais li am ba am mooy assemblée nationale boobee député yi ñu ngi doon laam-laamee dinañ ko yokk am déet gi yëf yi antuwul yow ban jàngat nga ci am. nga euh, parti parti au pouvoir euh, généralement euh, day jël considération yu bëri donc moom dafa jël considération di loger di yokk ay député yi donc mais gis nañu ñun gis nañu yokk boobu peut-être mën na jaar par le fait que ki inscription yu bees yi nombre de votants yokk nañu ci yeneen département par exemple département ou bien euh, création bu département bu Kër Massar mun na nekk euh, un argument de justification mais loolu yëpp mun nañu ko régler à l'interne sans pour autant ñu laal nombre euh, le nombre de députés c'est-à-dire harmonisation ci département ci ci ci répartition bu fa nekk mun nañu harmoniser ñu def beneen répartition de telle sorte que les nouveaux départements ak départements yoo xam ne yokk am nañu gis nañu seen électeurs directeur yokk ñu am ay ay ay poste mais yokk parce que dafa bëgg a régler clientèle am politique am na ñoo xam ne amuñu poste am xamul fu mu leen yóbbu na nañu yokk poste député comme ça dugal leen foofu loolu lool moo tax euh, parti démocratique bañ yeneen parti de l'opposition kon mbir mi daal jàpp ngeen ni ndam la non non pas du ndam mais ñun suñu liggéey la ñu dem la ñu def donc peut-être que ndam politique la ndam politique dans la mesure où dafa réculer mais nit bi eh, njiit boobu xam nañu ko parce que moom dafa am stratégie parfois day day day reculer pour mun a rebondir. Mhm. donc mun na nekk euh, peut-être que euh, dina am ay. waaw mu ngi préparé di rebondir. te bu rebondiree rek ci opposition yi. Mhm. lu weesu sa casquette libéral ñu wax en tant que euh, li ñu soxla ci yow mooy sa xam-xam ci wàllu relation internationale ndax moom ngay jàngale. lu ñuy waajal dibéer gi muy élection ñaareelu wërngël gi ngir tabum njiiti réew ca France euh, déjà wax ñu enjeu boobu la élection euh, ci àdduna. waaw élection boobu dafa am enjeu ba enjeu parce que élection boo xam ne day déroulé euh, day au moment où euh, euh, au plan mondial dafa am ay crise hmm. crise boo xam ne dafa affecté politique bi laal na koom-koom bi donc au plan politique gis nañu crise bu nekk Europe ah, bu nekk Europe dafa wone dafa dafa dafa jur yeneen sinon dafa jur yeneen yoo xam ne xamoon nañu ko c'est-à-dire euh, euh, adduna bi boo xam ne euh, ñi nekk à euh, beneen côté ñoom ñoom ñoo yi idées yi ñoom ñooy gis ay ñoom ñoo bokk ay gis-gis ñeneen ñi tam noonu la donc euh, le camp Russie ak le camp Amérique ñooñu nekk di confronté Amérique avec Europe mais Russie aussi avec ses alliés gis nañu ku nekk da ngay liggéey pour consolider ou bien pour conserver peut-être que Afrique moo nekk ci balotage bi parce que dans la nouvelle crise mondiale ah dëkk Afrique yi ñoo xam ne seen attitude mu non alignement ñu ngi hésité xamuñu ñu bëri xamuñu fan la ñuy féetu. Euh, yëf yi nag mu war a nekk ab final match retour sax ndaxte dajoon nañu ñaar ñi ci 2017 euh, euh, kan nga jàpp ni moo ci ëpp chance lan moo ko waral luy seen force ak faiblesse donc. waaw xam nga politique moom pour nga wax ni ci diw moo war a diw mooy gagné diw moo war a gagné des métiers quoi des métiers mais bu ñu xoolee seen parcours yi seen expérience politique yi ak li ñu wax ku nekk li nga gëm mun nañu nekk mun nañu wax ne euh, François et du moins euh, Macron am na am na chance de pour pour mu remplir mm-hmm. maintenant. Ah, parce que moom lu muy idée yi mu développé yëpp peut-être que dans la pratique Euh, parfois euh, ça laisse à désirer mais gis nañu li mu wax yëpp euh, africains yi dañ ko partagé. Euh, ah, sauf que bii euh, la la société française c'est-à-dire la l'opinion française dañ dañ ko partagé. Hmm. mais aussi bu crise bu am léegi. ah ak chômage bu bu laal jeunesse africain xale yi amuñu liggéey ah seen difficulté yi ah, ak islamisme boo xam ne ah, ñoom ah, ñu ngi ci logique bi contre mu dynamique boobu donc mun nañu wax ne idée yu ma eh, Le Pen aussi développé idée yooyu mun na ko vraiment am. yóbbu ci situation boo xam ne inconfortable population bi ñu ko wote mmh. mais gis nañu euh, bu dee vraiment le poids le poids de de des jeunes à euh, joue beaucoup mais malheureusement euh, dans ces pays développés la jeunesse ne joue n'occupe pas une place très prépondérante dans par rapport au nombre de d'électeurs mmh. donc sinon je pense que Hmm. position pour pouvoir vraiment remporter dara d'ailleurs sondage yi wax nañu Mhm. léegi euh, ñu gis ni euh, bu ñu seetaanee en tout cas seen débat entre deux tours bi mujj ponk yu bëri yi nga xamante ne wax nañ ci lu jëm ci wàllu kon seen projet ci Union européenne ndax Macron moom dafay mel ni ku bëgg euh, gën a yaatal yëf yi ci jamono yi nga xamante ne Le Pen li mu gëm mooy France d'abord jiitu nekk ci lépp ak seen relation ak Afrique ci wàllub diine wàllub kon kaala bi ak yooyu yëpp ci lan nga jàpp ni ci la wot bi war a sukkandiku. xam parce que xam xam nañu ne euh, opinion française ak président français actuellement le président sortant ñoom seen opinion c'est opinion européenne la euh, ñu ngi ci ci ci ci taxawaay boobu euh, Europe na nekk benn Europe na liggéey Europe na na na àndandoor Europe, na, na, européen, entre Européens, qu'il qu y ait vraiment un partenariat, un partenariat dynamique. Mm Donc, ci logique boobu ci logique européenne boobu la ñu nekk maintenant idée yoo xam ne Macron gis nañu ma euh, Le Pen sax euh, dafa commencer di réviser sa position parce que euh, elle était foncièrement contre le euh, euh l'Europe mais gis ñu léegi dafa changer position. Hmm. donc idée yooyu. Euh, mënu ko yóbbu pour pouvoir parce que euh, déjà la crise a prouvé que euh, dynamique collaboration moo gën moo gën a am doole parce que Russie tey Ukraine tey bu nekkoon Union européenne peut-être que Russie du ko attaqué te gis nañu tam crise boobu dafa créer ay guerre boobu dafa créer ay crise au plan financier et au plan économique hmm. de telle sorte que à travers euh, collaboration au niveau de l'Union européenne mun nañu am ay soutien ay ay appui yoo xam ne dafay dafay dimbale ay dëkk hmm. maintenant yow boo nekkee par exemple comme Angleterre bu nekkee nii da ngay def cavalier seul loolu de métti hmm. lan la ci Afrique mën a gagné gannaaw élection bi euh, ci wàllu coppite ndax xam nañu euh, lëkkaloo bi léegi France ak réew Afrique yu bëri léegi yëf yi mu ngi gën a ñagas oui comme ko waxee rek Ah, Macron euh, idée am lu muy wax euh, ci campagne bi peut-être que même durant euh, mandat bu passé wax na ko def na ko tuuti mais pratiquement am na pratique yoo xam ne vraiment ça n'honore pas les Africains mais gis nañu moom taxawaayam par rapport Le Pen lu muy wax lu mu bëgg a def malgré qu'elle qu'elle a eu sa position euh, parce que actuellement on voit fu fu fu muy dem ba wax sénégalais euh, moom dina euh, peut-être que mën na invité pays sénégalais donc je pense que au regard ngay ñoom ñëpp ku nekkal li ngay waxal li ngay gëm parce que gëm nañu ko. donc je pense que comme wax naa ko tuuti mm-hmm. Macron lu mu gëm lu mu def lu muy wax Euh, mooy peut-être que euh, moom gëm naa kii euh, collaboration partenariat ak Afrique mu gën a consolider. Hmm. te loolu daf koy may peut-être une chance minorité africaine yi ñu nekk foofu ñu wotee ko. Hmm. mais aussi Afrique peut-être que woon na yaakaar nañu coopération dina mën a développer davantage. Hmm. maintenant mais Macron et Le Pen moom lu muy développer lu muy wax. Euh, malgré sa la révision de sa position parce que wax na ne euh, ay avis yoo xam ne par rapport favorable par rapport au Sénégal mais euh, c'est quelqu'un moo xam ne elle est elle développe des idées radicales de droite donc idées yooyu peut-être que Afrique dafay day am suspicion hmm. donc loolu moo tax parfois dëkk africains yi surtout ses partenaires traditionnels dañu ragal moom moom moom moom élection yi. Mhm. may fàttali kon euh, docteur nga ci wàllub science politique euh, di jàngale tamit relation internationale ci université bu Ndakaaru docteur Famara Sané ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup maa ngi leen gërëm merci.